sëñ Fallu jaaru naa janni naa manni naa daane naa faati ñaay mee fa mbuuroon salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi bokki taalibe yi njabootug lislaam waa kër sëriñ tubaa xaadimu rasuul amaan nañ mbégte toog ci jataay bii nga xam ne dañoo jëlee ndigal ci sëriñ tubaa cheikh mahamadul montaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér jaar ci sëriñ Abo Baraka xalifatu Cheikh Mahamadul Fadal ñëw nag ci alxaaji Moustapha moom alxaaji Mouhamadul Amin Baara moom Cheikh Mahamadul Fadal moom sëriñ Touba Xaadimu Rasul ci bis bii nga xam ne ku ne xam ne ne bésub ngërëmul yàlla la waaye bésub sant yàlla la muy bis bi ñuy fàttali ko alxaaji Mouhamadul Amin Baara ka jeexoon takk ci Cheikh Mahamadul Fadal Mbàkke fab dundam gépp jaayante ko ak moom di ko liggéeyal bëgg ko lool ba tànn sax ba muy dëkkaale ak boromam. daa bàyyi ba ñuy waajal bésub Serigne Touba Cheikh Mamadou Fadal mu ne murid yi maa ngi dem nuyu ji leen sëñ Fallou bis boobu nag moo war a dëgg malaat war a doon ñaar fukki fan ak juróom ci weeru wolof yi ñu nekk war a dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru tubaab moo tax ñu toog fii ci kër Alhaaji Mouhamadul Moustapha mu toog ay rakam fas yéene woote bis boobu nga xam ne ci la ñuy delloowaat njukkal kana waxoon ne ña ko moomoon je dem nañ ñu ko bokk fi des te waxoon seereel taalibe yi na leen lu fi mën a nekk rek danaa wax Serigne Touba ne taalibe yee ko fi indi moo tax danañ yëkkati suñu kàddu jox ko Serigne Fallou Mbacké moom Alhaaji Mouhamadou Lamine miy wax ci turu Cheikh Mouhamadul Moustapha su noppee ñu fab kàddu gi jox ko sëriñ Mut Njaay muy wax ci turu dongo yi su noppee sëriñ Xaadim Géey jàmbaari Cheikh Moustapha jooju dana yëkkati kàddu ci turu dongo ya nekk Ndakaaru su noppee dana jox Baye Sëriñ Njaay miy wax ci turu turandoo yi waaye su noppee nag ñu jox Baye Sëriñ Njaay miy wax ci turu sët yi bu noppee ñu jox sëriñ Bara Fall miy wax ci turu turandoo yi ñun ñëpp ñu maase déglu Alhaaji Mouhamadul Fadal Mbacké mu yëkkati kàddu yi Cheikh Mamadou Moustapha wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigalal xalifatul xam tariqatul muridiya Cheikh Mouhamadul Muntaqa ayadahu llah wa nasra ci ndigalu Cheikh Mouhamad xalifatu Cheikh Mouhamadul Fadal Serigne Abul Baraka ñu ngi leen di yëgal ci ndigalu Serigne Moustapha xalifa Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Falilou ak njabootu Alaaji Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Falilou yëpp bis bi nga xam ni moom lañu baaxoo di ko amal di ci ñaanal Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ak di ko fàttaliku mu tollook ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru tubaab ak ñaar fukki fan ak juróom ci weeru rajab sëriñ Moustapha nee na mi ngi ciy woo mbokki yëpp mbokki taalibe yëpp ak mbokki saqiixa yépp ak mbokki jullit yépp di di ci jiital ci woote bi nag ñi nga xam ni ñooy yor daaray alxuraan yi di jàng alxuraan di leen ci jiital ci woote bi di ñaan sëñ Moussa nee mi ngi leen di ñaan nañ ko daan defee di ñu defee ko noonu wuy si te njàng alxuraan fonk njàngu alxuraan bu baax a baax ñu ngi ciy woo sëñ Moussa nee mi ngi ciy woo tarixatu suuf yi Sénégal yëpp tarixatul muridiyya moom moom yëf yi tarixatu tijaan ji tarixatu xaadiriya ñaseen waa ñaseen waa canaba nee na bàyyiwul kenn mi ngi woo ñëpp fépp fu jullit nekk ci réew mi ak ci bitim réew nee na mi ngi lay woo ci bis bi nga xam ne amuñu lu dul moom ci ñaanal Cheikh Mouhamadou Lamine ak di ko fàttaliku ñu ngi waxadaa rabbuka nag alaa taxbuda ilaa iyaahu wa bil waalidayni ihsaanan immaa yablughanna indakal kibara ahaduhumaa aw kilahuma falaa taqul lahuma ufin wala tanharhuma waxul xawlan kariman asalaamaaleykum wa rahmatulah. taalaa wa barakaatu euh, maa ngi nuyu sama mbokk taalibe di nuyu waa Ndakaaru ak li ko wër di di di fas yéene wax ak yéen màggal gi nga xamante ni moom la fas yéene defal sëñ Baara Mbacké Falilou nekk le 27 février 19 27 février 2022 sëñ Moustapha mi ngi ci yëgal mbokki taalibe yëpp yi féete waa Ndakaaru mi ngi leen di yëgal màggal gi di ko yëgal sëñ bi nee na mi ngi ko yëgal président de la république monsieur Macky Sall di ko yëgal euh, ministre de l'intérieur monsieur Antoine Diome di ko yëgal encore euh, président de l'Assemblée nationale di ko yëgal. Euh, Euh, maire Touba di ko yëgal aussi maire Mbacké sëñ bi tamit mi ngi koy yëgal encore euh, opposition bi yëpp di ko yëgal tamit euh, Aminata Mbengue Ndiaye di ko yëgal tamit sa Seck ak mboolem membre gouvernement bi yëpp rek di ñaan yàlla yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam sëñ bi tamit mi ngi ñaan tamit mbokki taalibe yi di wax ni cérémonie bi mu ngi koy fas yéene def à partir de di heures. fii ci Alieu ñu ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp ñu ngi ñaanal tamit euh, sëñ Moustapha yàlla na ko yàlla taxaw may ko gudd fan ak wér ba liggéey bi nga xamante ni fas yéene ko defal sëñ Baara mu def ci liggéey bi lu kawe njortam ñu ngi ñaanal ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa taala wa barakaatu. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmahin euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba yéen yi mu amee ci liggéeyal ko Serigne Touba mu defe ko na mu ko soobee noonu lañ koy ñaanal Serigne Abo di ko ñaanal Serigne Moustapha mi nga xam ne moo nekk ci buntu kër Cheikh Mouhamadul Lamine ñee li waral suñu kàddu ci jataay bii bu ñu ko gisee dinañu xam ne am na bis bu ñu dënmal te mu fàttaliku te mu jot ci ñun ñu di ko fàttaliku muy conférence boo xam ne daanañu ko def euh, sëti Cheikh Mouhamadou Lamine yi di ko def mu war a doon la vingt cinq février bi ñuy jëm incha allah fii ci Touba Aliya ren nag sëriñ bi jox ñu ndigal ne nañ ko tuddee sëriñ Mamor moom Cheikh Mouhamadou Fadal ku xamoon na Serigne Mamor ak Cheikh du lemin waaye yaakaar naa bu ñu tuddee Serigne Mamor la ci jiitu lépp mooy alquran ndax fonkoon na ko ba bi mu génnee àdduna sax ku koy ñaanal ci barkeb alquran nga koy waxal kon ñoo ngi woo daaree alquran yëpp di ci woo buntu kër sëti Serigne Touba yëpp ak képp koo xam ne la nga la fa la ne fi yow rek Serigne Touba moo ko fa def ñu ngi lay woo ci bis boobu. ñu war koo dajee fii ci Aliya def ci waxtaan woo xam ne Serigne Samb sax Abdourahman moo ñu koy defal muy thème boo xam ne mi ngi jëm ci social ak nan la ñuy defee ba dimbali nit ñi ba ñu am am xëy xam naa bu ñu ci yeggee dana gën a yaatu. def nañ ci ay rendre hommage tamit mu jëm ci kilifa yu baax yoo xam ne nekkoon nañu fi te yàlla dogal ñu jiituñu muy sëriñ Abbas Mbacke Daarul Moxti sëriñ Moustapha Massamba sëriñ Cheikh Jëmbu Fall sëriñ Abdoulahi Yàllaay Buur sëriñ euh, ak soxna maam Bousso Mbacke moom sëriñ Fallou ñoo gën koo xam soxna maam Bousso Madina ak soxna Ami Gànnaar di doomi Cheikh Mamadou Fadal. ak soxna aji xujje Jóob mu nekkoon ci kër gi nekkoon soxna Cheikh Mamadou lemin ak soxna Loota Gay moom tamit nekkoon ci nekkoon soxna Cheikh Mamadou lemin ak soxna Ndey Binta Mbàkke nekkoon sëtu Alaaji Baara Mamadou Fadal kon ñoo ngi woo bàyyi bàyyiwuñu kenn mboolem fu waay nekk rek di dégg suñu kàddu wala ngay ab jullit di dégg a di wax ashhadu an laa ilaaha illallaah wa anna muhammad rasulullah ñoo ngi lay woo ci bis boobu di ñaan suñu borom may ñu waaw noonu lañ ciy fàttalikoo tamit suñu mbokk suñu rakk soxna maam Jaara Kan moom sëtu Cheikh Abdoul Fatah nekkoon doomi soxna maam Faati moom tamit ñu ngi ko ci noonu lañ ko ci rendre hommage di ko ci fàttaliku waale kon daal bàyyiwuñu kenn ñoo ngi ñaan suñu borom may ñu yàgg koo def te yàgg koo fekk te rafetu fekkin te suñ borom may ñu àgg ci ak jàmm wasalaamaaleykum wa wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu yéen ci nuyoo bi nag kilifa Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xamante ne tey moo fi toog toogee suñu baara eh, yëkk suñu kàddu nag di ko jëmale ci bis bi nga xamante ne ci lañ dëgmal rawatina ci turandoo Cheikh Mouhamadou Baara yi nga xamante ne Serigne Baara suñu Abdou moo ko jiite Serigne Baara mu suñu topp ci suñu kàddu mooy ñu ngi soññu turandoo yëpp nañ ko daan defee ci bis bi ci wàccaay bi rawatina ci njàngum alxuraan mi nga xamante ne moom la ngi sëñ bi jagleel ñu tàmbali di ko jàng bi weer wi tero ba léegi. waaye ñu fas yéene incha allahu taala ci bis ba ni ñu ko baaxoo defee fii ci penc mi ci jumaa ji dajale fi daara yu bari ñu jàng alquran berndeel leen suñ neppee yëkkati addi jox leen ko kon ñu ngi koy fàttaliwaat turandoo yëpp ñëpp daal seen taxawaay bu nga daan taxaw nañ ko gën a yokk ndox sëriñ Baara jëfam kanam la jëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci ndigalul sëriñ Moustapha Mbacke xalifa alaaji baara mbàkke fàllu mu ñu joxaat ndigal ci ñu gën a yeesuwaat ci bis bi ci fu taalibe nekk te yaakaar sëñ fàllu te yaakaar sëriñ baara mooy njaboot gi ak fu mu mën a ne doon ab taalibe sëriñ xam ne ni sax woote bii nii ci rajo bi dañ koy baaxoo def rek waaye yéen xam ngeen kenn ku nekk lam seqoon ak Alaaji Baara te yéen a jum ci am moom xam na ni yéen a ko ko ëpple kon nag mi ngi leen di gën a soññiwaat ci bis bi rek xam ni yéen ko bokk ndax la baayam daan wax daan bis bi lu fi nekk ci dëkk bi ak lu mën a doon ci murit gi sëriñ bee waaye yéen it baat boobu yi dal na leen xam na ni xam ngeen kuy sëñ Baara jàpp ngeen ko. gëm ngeen ko wóolu ngeen ko sëriñ Baara nag mooy ki nga xam ni jàmbaar la woon joo xam ni moo def lu bari loo xam ni lañ cay rëccu ci moom mooy nekk ki nga xam ni nekk na ko fi rek mu gàtt waaye def na fi jëf joo xam ne ji jëf fi téeméeri at la kon sëñ Baara ñun ñii di ay taalibeem war nañoo góor woon bu baax xam ni nit ñi kat dañ daan jóge fii di fekk sëñ Touba gànnaar ca Sarsara di ca daj lu ne sëriñ ba dem ba yërëm leen bindal leen aw bayit inna lazina illa Sarsara xat xasado siyaaratin faaraxo darayni aw saara loolee nu li yàlla na nu dal ci bis bii kon fu taalibe nekk ak kum mën a doon na góor góorgóorlu ci li mu war a def ci bis bi gën a góorgóorlu gën a yaatal gan ñi gën a jàpp ci bis bi def ko ni ko sëñ bi santaane sëñ bi nag nee na moom xam na daleen di soññ rek waaye lii mu leen di wax xam na ni yéen a ngi ci wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jullit yi ñoo jot a déggandoo kàddu yu bàyyikoo ci ndaw yi nga xam ne ñoom la alhaaji Mouhamadou Moustapha yabaloon ñuy jël kàddu di ko wax kon woote baa ngi noonu sëriñ bi nee na mi ngi woo képp koo xam ne yaa ak moom yéen a bokk di wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ndax ku ne xam ne ne Cheikh Mahamadul Fadal loolu la doon dund waaye alhaaji Mouhamadou Lamine Baara it loolu la doon dund waaye di woo képp koo xamante rek bokk nga di yor rek di doomu aadama ne ci kaw suuf ndax ku ne xam ne taxawaayu alhaaji Mouhamadou Lamine Baara fonkoon doomu aadama rek la def ci ni yàlla tere la doomu aadama wala xadd karam naa bani aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahri kon sëñ Moustapha nee na mi ngi woo ñëpp bàyyiwul kenn diggéene nag woo nag koo xam xam ne kenn la ci kër gi doonoon rakk ci alhaaji Mouhamadul Amin Baara doonoon ab xaritam di Cheikh Mouhamadul Basir moom Cheikh Abdoul Khadir ku tudd kër alhaaji Mouhamadul Amin Baara sam xel dem ci moom xam taxawaay ba mu amoon ci kër alhaaji Mouhamadul Amin Baara am ko ci kër Cheikh Mouhamadul Amin Baara ba ba tey jii kon Serigne Moustapha nee na mi ngi ko yëgal ligg euh, boobu di xam ne moo sëti Serigne Touba yëpp nag ñoo ko bokk mbooleem koo xam ne rek Sëñ Touba jur moo xam ci góor wala ci jigéen am nga fu la sëñ Alaaji Baara tegoon ba waxoon ci làmmiñu boppam ne fu nit yam ci man maa ngi ñaan bu déwénee mu weesu ko ndax amuma frontière kon bis maa ngi noonu ñu ciy soññ nag njabootuk Tëngéej gépp nag bokk ci kër njabootuk Alaaji Mouhamadou Lamine Baara jaarale ko ci turu sëriñ Mouhamadou Ndiaye sëriñ bi nee na bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn mi ngi ñaan daal képp ku teew aliya yàlla na suñu borom yëkkati say maqaama ba napp far say roya sayyidal wara alayka salaamullah ya man ma sola